tay da ngay gis ko xam day bind dara ci mouride yi saaga journaliste ñoo koy njëkk publier nga gis kenen bind ci tijaan saga ñom ñoom ñoo koy njëkk publier mais ci ban anam loolu day taal rew donc message yoy la def ci woy bi message yoy la def ci clip bi ku wane ne tarixa yi ñëpp ben la xolen li ngeen di bind xolen li ngeen di publier ndaw ñi bu len tok ne yasar outil leen ko ñefe leen ko prenez votre destin en en en marche et bay leen tamit di juger nit ci solinam ci kasketam ci ay chaînam yu bëri wala ci numuy waxe kuma xam-xam ne nekkuma sax ci domaine boobu mais tey dafa am lu doon nelaw ci man loo xam ne dafa nekk di buuxante pour ma pour génnaat et mooy Simon rappeur te rap bi moo ñu def parce que li tax xale yi nooyee nañu ba pare bu ñuy waxte yàlla tax parce que nekkatuñu fi génneetuñu defatuñu concert defatuñu dara donc nooyee nañu ba pare maintenant <laughs> dañuy génnaat ci noyaaweem boobu sanguwaat soluwaat ba mu set wow ñëw buuxante jiwaat donc loolu la mais rab bi moo ñu defar rab bi moo tax tey ñu wooñu ci yaanaama parce que Rabbi bi def ci ñun engagement Rabbi bi ñu indil as tout comme gu ñu am investir ko ci ay business ba tax ba tay lolu mo ñu téy lolu mo ñu tamit wërloo aduna bi fu nek donc rab boobu noonu waruñu ko délaissé donc bañ ko délaissé bobu nonu moo tax ñu décider ñëwaat ak single bu melni indi sans lu ñuy wax moy rab bu baax bi xam nga indi rab bu baax bi pour euh, xamal nit ci né ñëwaat nañu et ça va faire vraiment dina métti loolu du dëgg encore une fois journaliste laay wax dañu war a def travail d'investigation ci loolu loolu du dëgg Fou Malade moo doon le premier bi doon génnee ay vidéo di wax ay loolu puus ba ñëpp di ko si clash naan ko li mu wax dafa ëpp waru ko waxee tu vois ku xam malal xam ko ci engagement ku xam malal xam ko ci jullite malal yena saa yi daf ñuy jiite julli di tari ay saar yo xam man mosuma ko dégg fenn tu vois té ku ko xam ci loolu nga koy xam ko mais suñu bindé loolu na ni ci dem vérifier information bi na nit yi dem vérifier est-ce que lolo amna parce que ay kàcc la mais comme ni mu ko waxee j'ai même pas envie de dugg ci ci détail yoy tay je reviens sur le plan musical culturel nañ dess ci culture waxtu tontu lolo dina ñew inshallah waaw génne nañu single bi effectivement bu ñu tabaskee ci ëllëg ci lay génn li ci toppaat ay concert la amna na benn festival bu ñëwaat moy VSD hip hop 72 heures yi dañ koy tegaat inshallah ci wa ci mois de décembre bi amna ay album bu ñëw ay yeneen vidéo yu ñëw am na ay sketch tamit yoo xam ne dañ koy accompagner donc bëri na liy ñëw pour wane ne vraiment musicalement dañu décidé ñëwaat loo tax single bii nii moyen yi ñu ci def moyen album lañ ci def waaw boo leen seetaanee après clip bi boo leen gis après tabaski communication bu ñu ciy waaj a def dinañ xam mais gars yi nu mu demee nii c'est vraiment pour wane ne on revient mais on revient vraiment pour joxe joxe lépp

Thank you.